boo koy liggéeyal tam dëgg ci yow. dara du jomb la. gestion bee tëddee noonu. Ah, dara jomb la. xam ah, nga bu fekkoon administration la moom da ngaa da ngaa ay grave yokkal ma. waaw ah. xanaa ak ab jaañ léeg-léeg ñoom foo xam day dëgër ab jaañ day dëgër. waaw di doole subventionné. Mm-hmm. ñett bi ngay fay ñu teg ñett téeméer nga mën koo gas mu jàll. incha mm-hmm. mm-hmm. allah ñu dem ci mais man balaa boobu man. sëñ wax jigéen ñi. waaw li euh, faatu ci ay góor. waaw Chérif moom jëkkër bi moom moom. góor ñi faatu. voilà góor ñi góor ñi dafa jéggi dafa jéggi dafa góor ñi 5371 la. jigéen ñi 1004. ñoo fay. ñu ngi denc rek. góor ñi ñëpp jigéen ñi fop. 5000 nangam. waaw 5000. jéggul de. non non non ah, maam euh, Birame dimbale mooy góor ñi. jigéen ñi 1004 mooy jigéen ñi. jigéen ñi 1004 lañu góor ñi 5000. loolu mooy tri bi ci Baqiya ak ci morgue bi. ndeysaan. loolu nekk na que xëy na aussi que Covid bi ni mu faat ci góor faat ko ci ci jigéen. waaw xam nga Covid bi xam nga Covid bi ñoom ñoom ñoom balee Covid bi ñoom ci Touba man mën na maa xam mën na ma koo xam secret. nañ ñi ay Covid la. waaye man ndegam moom mi mi mi bind bind lool man lool. koy bàyyi noonu rek. dëgg li may wax rek foofu mooy euh, chiffre yi dafa jégg dayo ci pathologie yi nga xamante ni moom moo moo faat nit ñi au delà Covid bi moom nee nga enterrement presque dafa doublé. Mm-hmm. parce que ku jógee ci 600 en janvier. dem ci ay mil lool takku na. Mm-hmm. mais chiffre yi normalement waa ministère de la santé war na ñoo ñëw liggéey ak yéen jël ko xool lan moo tax et jubbanti parce que cancer bi di wax ñu ngi ci mois d' octobre. ñu bi mu wax ak yooyu c' est nga wax nii dafa jéggi dayo mortalité chez les femmes ñi accouché. lim bi bëri na waaw les morts mais nga xam ne indaale wuñ néew Chérif moom moom mënu koo wax parce que position bi mu nekk mënu ko wax mais ñun suñu responsabilité mooy attirer attention kilifa yi ci jàngoro yi rey nit ñu jëm koo jubanti bu dee dañuy yéegal plateau technique bi bàyyi dige bi ñu def ko parce que lii jéggi na dayo statistiques yi mooy di ñu doon wax démb rek xam nga mbas mi dafa ñëw xaw a mbuur un peu yeneen pathologie chronique surtout mooy li ñu doon wax démb mm-hmm. que lu laaj ci plateau technique bi laaj ci hôpital bees bi ñuy yeesal ak yooyu yëpp ñu gën a bàyyi xel ne euh, joyante yi bëri na mm-hmm. jàngoro yaa ngi fii di faat mm-hmm. statistiques yi am solo la euh, ay ay ay ay wéeruwaay la ay ay miroir la pour xam exactement cartographie euh, population bi jàngoro yi ñuy am ak surtout spécialistes yi comme ni nga ko waxee comme démb bi ñu waxee nii cancérologue amul fii. Mm. ak nga gis tawat bi également ni mu fi teewee. loolu ay ah. jafe-jafe la foofu sax Pafara ba ma ko mayee en fait euh, pour juste wane rek ne du Touba rek. Mm. parce que miroir la comme ni ko waxee. murit yu bëri bu ñu ñàkkee seen bakkan dañuy sàkk ñu indi leen ci suufas Touba. Mm. loolu moo tax sëñ Matar yore lim yu takku yi mais li Chérif wax dañ ci war a bàyyi xel te je crois que autorité ñu ngi seetaan. parce que bu ñu nee jabet ñu ne mille ak nangam lu teg. te muy maladie boo xam ne moom nga dëgg wax na cancer wax na hypertension mais mais cardiaque hypertension c'est extraordinaire donc muy ay mbir yoo xam ne je crois que autorité yi tamit war nañoo rapproché ci waa Muxaddamatul Xidma parce que ñii ay source yu fiable lañu mhm. te itam dañoo def seen gëstu yu leer ba am ko du loo xam ne dañ koo ñëw wax mais dañ ci liggéey ak ay médecins bu ñu ñëwee cause de décès yi ci boppam la ñuy répertorier ci seen liste moom moo war a tax ñu bu takku nii et ils sont très très très très organisés macha allah papara euh, loolu laa bi macha ah allah ah parce que c'est extraordinaire nga répertorier kii lii moo ko faat kii lii ak lii tamit li ñuy war a gën a yokk Chérif mu ngi koy wax dëkk Touba xam nañu day gën a màgg mu ngi màggati law dem na bu Jurbel continué ba pare Carrefour la mm. nag côté Matam géeg Linguère ak yooyu Ouro Sogui ñoom ñëpp fi la ñuy jaar voilà yaakaar nañ ne nag kon xam naa état bi dégg nañ plaidoyer ak chiffres yi dina nekk lu gën a am solo ñu gën a mën a yokk jàppale ñoom sëñ Maktaat jàppale waa dëkk bi ci pathologie yi ndax nag. Mhm. feebar yi li mu faat nag bëri looloo raw sax corona. wallaahi même boo jëlee Covid bi ni mu ko waxee nii maanaam région yi néew yi fi ñu jógee boo xoolee classement bi moom wax na ko xëy na mooy dëkk yi nga xamante mi gënoon a laal. gën a laal bien na laa wax Dakar li mu indi ni mu séparé woo. faatu ci nangam nangam par par par bana la bana la géejuwaay ca quartier mu dëkk bana la Pikine par parce que gëstu bi day xóot trop. ñun nag léeg ñu am jafe-jafe ndax léeg nga indi néew boo xam ne nii jaarul ci ni mu faatoo day xaw a doy waar misaal ku for mu ko xam loolu loolu ko rey waaye da ngay dépendre ci waxi docteur yi. dëgg la te ngay dépendre mu tax ñun man bés am na ma soxla léegi man li ma wax naa naa mag la naa ko suspect ma ne ma ko àll maa ngi Touba ñëwal Touba ñu àgg ma ubbi magasin na ko lii daal Fall la jóge lii nangam lii nangam lii nangam yaa ko bindoo bindoo ko. bu xoolee xam ne ma li ñu wax moo ko mu naan diw mii lee ko faat ñu ne ñu ne ko faat ñun. Hmm. kon bu rapport yi génnee ñu naan naa néew na te ñun ñoom ñoo bind. dëgg la ñun bind. Hmm. loolu mooy mooy jikki bi système ko kon mooy ba baqin la dafa séré mu tax même guddi gi guddi gi xam nga fan yaa ngi ne ñu naan baqin am na ko ab sàcc bu ñëwoon bu ñëwoon. kon jël ñun euh, raam yi ñu téléphone ci néew yi bari yooyu ñu ko sàcc na leen jàpp yaa ngi ne fan yii gis nga ci barab mag yi am ñu fi dugg di sàcc ay ay ay ay ak ay bunt ah, yaa ngi gis waaye ñun ñëpp lañu jàpp hmm. parce que daayira bi dayru Matar Kane dong yow ci nga bokk ndax li ñu yor fii day lépp ñëpp lu ne ku ne nga ci dëgg la moo tax ku gis loo xam ne nii dafa wuuteeg li nga def hmm. dan lay corriger tey nag wax dëgg yàlla waa dëkk bi. Hmm. dañoo jàppale. jërëjëf waaw jërëjëf waxtu wi xoj nañu. macha allah kenn bi neex na. <laughs> Euh, c'est c'est yàgg nañ couvrir quand même mais euh, ren jii macha allah dañu ñëw génn feneen sëñ Maxtaar Kan nekk suñu collaborateur ndax saa yi ñu dem ci jumaa yi dañuy am ñoom seen digal laata ñuy filmer organisation bi exemple la rek euh, am na ñoo xam ne dañuy ñëw xamuñu boo duggee di photo wu bala ngaa taal sa caméra ñoom ñu wàcc ñeeg sa kanam parce que ci kaw am na nañu équipe yoo xam ne dinañ la mën a repérer dañuy euh,